république son excellence du coup invité ci li nga xamanteni moy euh na bàyyi na libéré doomi jàmbur ji di Guy Marie Sagna avant le 28 té buñu ñu ci le 28 qu'il amène une réponse franchement na pas eu lu bi jaajëf ci liñ koy xaar moy li caat wax du ci yii nii mhm. du ci yëfu tiaxan yi du ci Sénégal mhm. mais ci ñu koy xaar ci une euh, euh, une justice libre ci li ñu koy xaar mooy des droits. yoo xamante ni une liberté d'expression. ci li ñu koy xaar dëgg dëgg dëgg dëgg mooy que Guy Marie dafa war a ñëw fekk si le 28 mars bi di am incha allah. kon yal na ko yàlla génne Guy Marius euh, Sagna donc merci Chat euh, Chat merci beaucoup. jaajëfatee mais kilifa merci. merci beaucoup Sylvain. merci à tous les auditeurs de. République son excellence di ko invité ci li nga xamante ni mooy euh, na bàyyi na libéré doomi jàmbur ji di Guy Sagna avant le 28 te bu ñu ci le 28 qu'il amène une réponse franchement na bàyyi tànkam lu bi jaajëf ci liñ koy xaar mooy li caat wax du ci yii nii mm-hmm. du ci yëfu caaxaan tu du ci yàq Au Sénégal mm-hmm. mais ci liñ koy xaar ci mooy une euh, euh, une justice libre ci liñ koy xaar Moi, des droits mm-hmm. Yo, xamante une liberté d'expression ci liñ koy xaar dëgg dëgg dëgg dëgg mooy que Guy Marie dafa war a ñëw fekke si le 28 mars bi di am incha allah. kon yal na ko yàlla génne Guy Marius euh, Sagna donc merci chat euh, chat merci beaucoup. jaajëfatee mais kilifa merci. merci beaucoup Sylla. merci à tous les auditeurs.